mbokk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 say mbir ba mu leer nañ ak foo mën di nekk foo mën di féeti jokkool ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa dal leen ak jàmm mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci wasaare lamb ci xibaari lamb yi la ñuy door ak yéen niki tey altine yemboog ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier atum 2021 li ci gën a fës sunu papa père Boy Bambara jóge fi niki àjjuma bi passé ñu daal di koy jébbal borom niki samedi ga ñu naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un foofee ca kër ga nag bari autorité yu fa ñëw daal joxe si seenam njaal rawatina ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon làmb ji foofee la nuy fekk ku fa mel ni sunu papa Bekaay Mbaye père Birahim Ndiaye ba ci Kati Diop ñooñee fekk nañ euh, euh, na ci bi ak nu yaatoo ak li nga xam ne moom la xalaat ne bu ci làmb ji duggaatee euh, di jafe-jafe yi mu nekk nii mbër yi nga xam ne engagé na leen ku ci nekk dana yëkkatee ak koppar mu néew ak mu bari teg ko ci sa loxo mbokk yi loolu moom mooy li gën a fës ci xibaar yi tey yi nees tuut bu bàkk bi daana ñu ñoo génn ci yaatal yi comme liñ leen ko waxee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un suñu papa booy bambara gannaaw tëraay bu yàgg boo xam ne feebar tëraloon nag ko mujjee naa wuy ji boroomam niki ajuma bii ñu génn ca samedi ga nag la ñu ko daal di jébbal boroomam foofee ca yoof mu nekk nag bës boo xamee ne tiis na ci axlu làmb lool rawatina ñi nga xam ne nii ñoom la nekkaloon nekk ak ñoom ci benn écrit muy waa écrit wala école de lutte euh, booy bambara mu nekk naqar ak tiis wu dal seen kaw waaye dal ci kaw axlu làmb yépp ràññee nañ leen ci làmb miin leen ci keppaaru làmb daan leen gis ñuy jëflante ak sunu papa père Boy Bambara ku ci mel ni père Birahim Ndiaye moom la ñuy dem daal di déglu jaay kàddoom ci témoignage yi nga xam ne def na ko ci jëmm jooje nga xam ne moo fi bàyyeeko ko. ñëpp fi ne daal ñaan ko njëggal rek fi dese waaw parce que grand bu bien la woon man am na fu ma jaar moom ci affaire carrière làmb mais bariwul parce que bokkuñu woon écrit man Fass laa nekkoon moom Grand Dakar la nekkoon. ñaar tali moo tax man écrit face laa nekkoon waaye nag daan nañu gisante di nuyoo di waxtaan di muy sama grand ma jox ko cër parce que moo ma ko ci sport bi bokkoon nañu te ko nekk équipe nationale tamit may entraîné ci ñoom foofu ak benn tubaab bu ñuy wax euh, Roses ak ku wax euh, grand Aziz Lam ak ñoom Amadou Kati Diop mii waaw ak ñoom Amboura Sarr mii ak ñoom John nag ak ñoom lang-lang xale yooyu boobu ay boy lañu quoi booba daana fa ñu ñuy entraîné nii mu nekk sunu gara ñu seq jàmm rek waaw parce que. li ma daan wax rek sportif ñun ay adversaire la ñu mais du ñuy ennemi. waaw du ñuy ennemi tey moo waral gis nga tey sportif bu génnee àddina ñëppay ñëw kenn du des. fa mu daanele ay kàddoom moom père Birahim Ndiaye foofee la yëkkate ay kàddoom moom suñu papa Kati Diop mi nga xam ne yàgg naa ànd ak père euh, Boy Bambara xamanteeg moom bu baax ci génn ñu doon génn di ko amal ci bitim réew naka noonee dañuy dem déglu ji ko ci témoignage yi nga xam ne amal na ko ci micro jili kebe. ni kilifa la ah, man mii di wax ak yow moo ma jàngal gërëm moom ma jàngal luy bras à la volée moom ma jàngal luy bras roulé moom ma jàngal tout dans en tétard donc moom sama maître la moom a jàngal ba mu mun di topp di jàngale donc loolu ku mel ni kooku nga xam ne kooku a ah, ponk si lamb te ku bëggoon làmb ku fonkoon làmb dundam yëpp làmb la. waaw moom balaa muy kontaan mu taxaw si diggu géew mu leen tëbaleen te moom tukulóor la woon. mais du wane comme du affaire raciste yi ñu ko gars yi di def si ñoom naan kii tukulóor la kii séeréer la kii kii kii kii kii lébu la gis nga moom la mas di sol di sol tëbal la mas a def yëfu lébu la mas a moo tax nag mu mun li mu mën di mën a bàkku di mën a tuus di mën a bëre. moom suñu papa père booy Bambara nag taxawaloon école de lutte boobu dippe ko boppam muy école de lutte euh, booy Bambara nga doon jëflante ak ay manager naka noonu ci la sunu papa Bourkhane Wade daal di fay teew teewaaleel manager yëpp moom it yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci père Boy Bambara mi nga xam ne moo ñu dëddu. booy Bambara a plusieurs fois représenté la Sénégal indi ay médailles Boy Bambara détenteur plusieurs drapeaux la drapeau Makhari Thiam. drapeau euh, Gabar Ndoy ak yeneen i làmb yoo xam ne moom moom mu yoroon seen i drapeau kon booy Bambara vraiment euh, làmb ñàkkati na ñàkkati na parce que koo xam ne tu as toujours représenté le Sénégal indi ay médailles dem boo war a dem à la retraite daal di créer sa école école boobu créer ñoom tafaa booy Bambara ak ñoom Caat ak xale yu bare yoo xam ni euh, fàtte naa sax seen i mais ba tey li mu liggéey daal en tout cas pour làmb ba léegi produit yooyu mu ngi fi des. foofee rek ni ñu gisee ancien gloire yi gisee ko manager yi gis fa promoteur yi aussi gis nañ fa ku ci mel ni suñu papa nekk euh, père Bécaye Mbaye mi nga xam ne ku ko xam-xam na ko ci làmb ci liggéey bu rafet bi mu doon amal rawatina foofee ca Bantamba moom suñu papa Bécaye mbay yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci suñu papa père booy Bambara mi fi jógee dañ koy déglu ci micro ji bi. nit ku baax nit ku bëgg sport nit ku bëgg làmb ñun bu nu bëggee làmb Boy Bambara man bu ma duggee làmb Boy Bambara bu ma amee mbër booy bambara lu ma am ci làmb rek booy bambara moo tax man ma dem ma dugg ci mu nekkoon ku ko bëgg nekkoon sunu idol ndax moo doon sunu star koñ moo fa daan bëre koy bëreel ñu ne Mbaye koy bëreel ñu ne Doudou ba kasaar koy bëreel ñu ne Moussa Diame koy bëreel ñu ne maam góor yooyu daf nu doon neex loolu booy bambara ko fa indi dem daan gaa yëpp ñu gàddu ay drapeaux kon donc moom moo tax ñu bëgg a làmb bu daan bëri ji dañ daan taxaw ci buntu kër gi bu nu génnee mbiskit yeeg yëpp ñun lañ koy sarax ñu nekk ay xale am ay sept ans ki huit ans ki neuf mu doonoon koo xam ne vraiment dootuñu ko fàtte di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana te it lu mu musa am indi na ko ñaari tali naka noonee nag am na yeneen i mbër yoo xam ne teew nañu foofee ca yoof bi nu koy jébbal boromam ku ci mel ni tafaatin nga xam ne kenn dootu ko présenté ci làmb moom it teew na fa yëkkati ay kàddu jëmale ko ci sunu papa ji nga xam ne moo fi bàyyee ko man dafa am lu mu booleeg moom muy ñu yore sama agent communication muy cuun ak papa hélas cuun ak papa ñoom seen papa moo doon entraîné booy bambara hmm. te ñu ngi nii taxaw ma leen koy jaal aussi di ko jaal famille bi yëpp hmm. di wax ne aduna moom nii la. nit moom bu dédoo da nga koy ñaanal yàlla yàlla xare ko aljanna rek. waaw ñun ñi fi des ñu leen di ñaanal. loolu daal mooy. kon ngeen gisee ci làmb yéen ñaar. waaw daan nañ gisee wax dëgg yàlla am na un jour ma ñëw di bàkku ñu téye ñu man ak moom ci bunt bi mu ne kii samedi passé la bëre yàlla may ko ndam bu leen ko téye may leen ko mu dem loolu ci laa ko gën a jàppee wax dëgg yàlla. noonee la def mbokk yi daal di dem ca Baba Diaw bi nga xam ne promoteur la taxawal fi ay combat Baba Diaw nag combat yi nga xam ne nii moom la engagé dellu si na ci ci ni mu gën a yaatoo ak huis kilo bi nga xam ne jàpp nañu ne làmb ji fa la jëm waaye tamit daal di def benn révélation boo xam ne su làmb ji delloo ca na mu nekkoon dana yëkkatiwaat kopparam daal di koy dollil mbëri ndax nag metti na ci ñoom loolu dañuy dem déglu ji ko ci micro Ousin Diop. maam Nday huis clos soo ko déggee maam ñàkk pexe la. kabana huis clos soo ko déggee mooy ñàkk pexe la tey def ko huis clos saison bu jeex benn saison bi ñëw ñu ñaan yàlla match bi dem ñu na suñ xama waaw mais ñàkk pexe la mais day au moins tamit huit club gars koy dégg mais huit bi day am ay tëggat sabax xam nga day am ay waykat peut day am ay kak ak personnes yu dugg mais huit moom sës. man su ma yéene man bëgg naa avant may di sëgg kii euh, sama combat yi bu nekk ma xool lu ma la jox man sama yéene. jàppale waatee la ko. ak Seexu Xadim ndax ay ay doomu gox lañ. am tey am loo xam ne tey suñu état jàppalan xalaatuñu sax jël lépp du du du ko dugal suñu poos xalaatuñu loolu foofee la ñuy jeexale mbokk yi xibaar yi joxaale leen benn information boo xam ne yi daal di ñi nga xëy na tey fësal ko ci journal sunu làmb bi daal di xamle ne làmb ji daal bu naree continuer nii combat mu taxawal dana ko jël yóbbu ko foofee ca Gambie yi ñu bëree ko fa muy nag euh, tournoi ba nga xam ne nii moom la duppeel tournoi des espoirs te nag ca bopp ba ñu mën caa jàpp ku ci mel ni Koña 2 ak Ronaldinho nekk combat bi nga xam ne mën nañ ko caa jàpp muy komba ba ca gën a mag mbokk yi lii moo nekkoon li gën a fës ci ëttu xibaar yi tey cant ak ngërëm ñeel leen ñuy jaajëfal bu baax a baax Jili Kebe ak euh, Ousseyn Diop kàggu ak Adama cant ak ngërëm ñeel na leen noonee la ñuy def daal dem ak yéen ci revue de presse bi bu ñu fa bàyyee bàyyee ko daal di leen jaajëfal jox leen dig daje ba ëllëg incha allah ci yeneen xibaar jërë ngeen jëf. yaraax la ñuy def fekk fa combat bay dox ca diggante Boy Niang 2 ak Tapha Tine bile combat la sunu papa Kati Diop ñëw waxta xalaatam gannaaw na ko defee ci combat yi diggante Bombardier ak Balla Gaye 2 diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 diggante Modou Lo ak Ama Baldé tey sunu papa Kati Diop danoo ñëwal ci diggante Boy Niang ak Tapha Tine dafa ñëw ci wute gu yaatu gi ñaari mbër yi wute ci wàllum xeex ci technique ci staff ba ci force ci wàllum bagaar di xeex foofe la sunu papa Kati Diop tàmbalee la mu xamle mooy ñaari mbër yépp ay xeexkat lanu Tapha Tine xeexkat la Boy Niang 2 xeexkat la waaye xeexu Tapha Tine moo gën a a jaar yoon moo gën a ordonné loolee nag terewut booy ñaa nekk xeexkat bu mag ci wàllu xeex daal ñaari mbëri ku ci nekk am nga ci loo mën a demee marché bu ci wàllu technique la mu xam ne mooy Tapha Tine ci wàllu technique Tapha yor na ci lu ub làmb waaye booy ñaa de moom it ci wàllu technique am na ci riñaan bu yéeme riñaan boo xam ne kum ko def nga yegg teer bu ci wàllu staff la mu xam ne mooy Tapha Tine bien encadré Tapha xel la bokk ne jàkk xam ni ko am force la waaye Boy bu ngeen jàppantee nga xam ne borom doole la loolee lañu sunu papa Kati dikkal ci ñaari mbëri diggante Boy ak Tapha Tine dikkal ci wàllu MMA mooy Khadim Gadiaga ancien lutteur nekk fi président bu Rock ak ka ñuy wax maître Dame Seck instructeur d'arts ñoom ci carrière rëg-rëg la ñëw ci ni mu gën yaatoo bu dee maître Dame Seck moom la mu xamle mooy rëg-rëg à développer des techniques sama élève la Mamadou Diouf a koy entraîné te yokk na lu bari ci moom ci wàllu boxe ci wàllu technique de samba ci wàllu poids bu dee Khadim Gadiaga moom la mu xamle mooy dañoo war a monter ab ligue bu mag dajale suñuy doole fas yéene compétir MMA bu boobaa danañ ci impliqué Bombardier rëg-rëg ba ci Siteu bu booba mbooleem ñi bëgg a def MMA danañ leen ci boole ngir ñu liggéey liggéey bu metti rax ca doole moom Khadim Gadiaga ne xam naa ay combattant de haut buñ taxawalee ligue fii ci Sénégal danañ dem fu sori nag mbër yi nañu bàyyi xel ne xaalis fuuf làmb ji ba tax na ko ci mos dootoo ko bàyyi ka bàyyeegut la mu ba léegi mooy yi daali ngi ca tournoi ba mu taxawal di la tournoi des quatre espoirs moom yi daali ñi ngi dafa fas yéene délocaliser combat mi yóbbu ko ca Gambie tournoi boobee mën nañ caa jàpp ku ci mel ni Koña 2 ak Ronaldinho caatu Daouda Fall Albal Kakayre Yankaaw Junior Kaw Gourdé yii leen mbërëg yi les journée fas yéene na ko yóbbu foofee ca Gambie moom daal la mu xamle mooy saison bii dara leeragul autorité yi waxaguñu dara te ñépp ngi ne patt defoon démb yóbbu sunu papa Balla Gaye 1 fi jaaraat niki samedi yóbbu sunu papa Boy Bambara moom sunu papa joojee niki ajjuma janvier la dëddu àdduna ba ñu xëyee ca samedi ja lañu ko jébbal boroomam foofee ca Yoff journal ba xëy bind tristesse et consternation aux Parcelles Assainies lancé gloire perd dernier combat njàqareeg tiis Parcelles Assainies sunu papa Boy Bambara wuy ji boroomam li ci des mooy ñaanal ko sunu borom atte ko ci yërmande jërë